mawlaaya cheikh ahmad ibnu mohamad tijaani radiallahu anhu ridwanullahi taami an jaabir ilkasri abil fiyudaati wal anwaari saadat al anaam barakat al anaam cheikh alislaam alhaaji ibrahima ñas xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa habibihi alqaail hani'an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada li naasirina jamaaluhu mbokki téléspectateur yu 2STV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di am mbégte lool ak kontaan ànd ak yéen ci liggéey bu màgg bii nga xam ne mooy liggéeyal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy liggéey boo xam ne mu ngi jëm ci jéem a wane melokaan jéem a wane jikko ki nga xamante ni mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu di ko defee ci ron keppaar yi xalifaam bu màgg bu rëy boobu nga xam ne liggéeyal na ko liggéey yoo xam ne néew na ñu gis mbindeef bu def loolu bi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi koy ndokkeel moom Cheikh Ibrahim ci weer bi kem ni mu ndokkeelee boppam si weer bi feeñaan mun maa ngi ndokkeel Ibrahim ndax weeram bi feeñ na euh, xam naa du ci sori waaye dañuy nuyu xalifaam bu màgg bi Cheikh euh, Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla na fi yàgg loor te ànd ak wér xilaafa gi nga xam ne moom la ko yàlla jox yàlla na ko ci yàlla may ndam ko ci yàlla dimbale ba may ko mu réaliser ci lépp loo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim mébétoon na ko ci xeet bi waaye ci fayda bi yàlla dimbale ko ba mu réussir yëpp buñ ko nuyu rek nuyu nañ mbooleem kilifa yi ci réew mi yëpp mbooleem xalifa yëpp bàyyiwuñ kenn jaar nañ ci ñoom jox leen suñu néew ne itam imaamul akbar imaam Cheikh Ahmad Tidiane ibn Seydi Mawlaay Aliou Cissé ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wét ak mbooleem ay ima yi koy jàppale ci liggéey bi waaye mënuñoo ñàkk ne tam ki nga xam ne mooy borom guddi gi war koo màggal aminul waay wa wakili daad Mawlana Cheikh Mahamadul Amin di ko ñaanal wét geeram ak euh, tawfiq ak taysir euh, ñu toog fii nag tey war a jàkkaarloo ak suñu waajur boroom xam-xam bu mag grand professeur boo xam ne mën nañu wax ne paaka ñaari boor la soo demee ci araab professeur bu mag la ci boo demee ci li nga xamante ni mooy anglais itam bu mag la fa ñu koy wax oustaz ma yaasin Niass moom la ñu war a dalal tey mu war ñu waxtaanal ci Cheikh Ibrahim mu allimul ajyaal moom nag moo seet nu mu koy duggee ak nu mu koy defee comme moom jàngalekat la yarekat la moo ñu gën a xam dëgg-dëgg fan la war a teg li nga xamante ni moo di dars yi nga xam ne téléspectateurs yëpp ñu ngi koy xaar ci moom kon euh, papa oustaz ma yaasin ñu ngi lay nuyu di la ziara ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yu 2STV. bisimilah rahmaani rahiim maa ngi nuyu téléspectateur yi di 2STV gannaaw bu ma nuyoo ndokkeel Medina Baye ak julliti àddina bi yëpp ci événement bi nga xam ne moo gën a màgg ci événement bu xam ci kaw suuf ndax li boroom indi ak nim defaree nit kenn mësu ko def ci àddina te kenn dootu ko def maa ngi nuyu xalifa cheikh Mouhamad Mahi Ibrahim ñaas mi nga xam ne te moom la yàlla def muy xalifa ci Medina Baye di ko ñaanal yàlla réussite li taxoon baayam sañ ci dëkk bi yàlla dimbalee ko ci ba ma am def ci ay jéego yoo xam ne yi kenn du ko fàtte te dootu réer ba ilaa yawmiti maa ngi nuyu Baba Lamine mi nga xam ne ci moom ngeen jógee koo ñëw fii ci man maa ngi nuyu imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mooy imaamu dëkk bi ak imam yi nga xam ne ñoo koy jàppale maa ngi nuyu nag Cheikh Mahi Cissé suma xarit la ñoom ñëpp sama xarit la dëkk bi yëpp sama xarit la e eh, waxtaan wi nga xam ne tey ci ngeen ma xoo ma bëgg ci waxtaan ak yéen muallimul ajyal baatu muallim ci lay taxaw kan mooy muallim lan mooy rolam ban résultat la ñuy séntu ci muallim parce que yonentu mi nga xamante moom la ñuy màggal guddeem gi jublu ci loolu tey jii ba mu waxee daf ne innama bu'istu mualliman man dañ maa yónni kese pour ma nekk jàngalekat baatam inna maa ñi jàng arab xam nañ ne xasru la ci jumla ba muy dugg yónneewuñ ko dara dara dara dara lu du nekk mu nekk muallim adduna bi nag résultat bi ngay gis tey ci monde bi ma bëgg a wax ne suuf si yi nga xam ne tey moom lañ am yàlla suuf rek la bind jox ñu tegu ci dara moo bindu suuf bindu ndox ak mala yeeg yi ci des mais li ci des lépp réalisation yi muallim yi la waaw loo mën a gis ci ko suuf tey rek façon ko tabax bii amu fi woon muallim yi ñoo dugg ci njàngale mi dégg nga seeni plan ñu am ta façon ko tabax ñoo defar yoon yi tukki yomb ñoo defar avion yi ak oto yi lépp yomb ñoo ñu dugal ci géej génneel ñu koom yi génneel ñu ya fa nekk lépp mu yomb muallim daal mooy nit ki nga xam ne kii mooy ki gën a am solo moo tax yonentu ne moom yónneewuñ ko dara lu nekk muallim boo légee bu ñuy demee àllaaxira bay dekki buy dekki ca muallim mi mu ne ci lay dekkee bon muallim lu am solo la ah buñ tànnee nag Cheikh Ibrahima Niass ne muallimul ajjaal yi la Cheikh Ibrahima Niass bu fekkee góorgóorlu woon nañ ba dégg ko mu mu assis dawla islamiya la defar lim tëral buñ ko appliqué woon état islamique lañuy ñuy am état islamique nag fu ñu ko tuddee léegi xel yi defee ne fi mu nekk nii affaire terroriste la du loolu l'islam baat bi xam nañ ko ci jàmm la jóge ko paix Hmm? bon baat boobu nga xam ne fi mu nekk nii piis lay wane ci àddina bi mun te nekk diine boo xam ne bii dafay ñëw di rey nit ñi di leen faagaagal di leen sonal dina leen mundu xataal ndax ba mu ne innama bu'istu mu'alliman daf na manitam itam bu laa bu yërmande pour doomu aadama yi pour addina bon kooku lépp loo xam ne gis nga ci moom mu doon violence ñii di ko ko xaskan bokku ca diine jàmm la xamee e jàngale ni ma la ko waxee mooy li gën a xam solo ci kaw suuf aadama bi ko yàlla bindee bëgg koo dénk suuf sii daf ko jàngal yàlla mooy professeur bi aadama mooy élève bi wa allama aadama asmaa kullaha lépp la ko jàngal nag bu boobaa nag ñun su fekkee ñun ñooy ay doomu aadama wuutu suñ bàyyi aadama bëgg a dem sans xam-xam duñ dem xam-xam boobu ñu bëgg a demee itam dafa xam ñu ko yore Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne tey moom ci la ñuy waxtaan jàngal nañu bokkoon naa ci ña doon jàng ci moom def nañu ki jóg di jàngi il faut mu am ñetti yi foog mu am bëgg foog mu am xel foog mu am jàngalekat bu man mu ne ñetti yooyu bu manqué toogal boo demee xam-xam du ñëw mu doon nit koo xam ne kii njàngam rëy na ba ëpp jàng na wax naa la jàngal na ma maqamatul xariri jàngal nañu ko jàngal nañu shuaraaw sitta jàngal nañu ko alifatu ibnu malik jàngal nañu ko mais pour nga war a doon ki nga xam ne yaa war a nekk ci kanam nit ñi ëllëg waaye danga war a xam lépp nag lépp ngay xam dañoo ñëw toog mu ne ñu tey sëriñ rek lañuy jàng sëriñ kuy sëriñ bëriwut nag ñu ne ko ah mu ne bëriwut ñetti tomb rekk la buñ demee ba joxoñ ko ne kii sëriñ la dootu delloo benn laaj ci lislaam moom moo ñu ko wax xam nga ne kooka mufradaati araab yi baxu ko fa grammaire arabe ba baxu ko fa dégg nga ko balaaxa ba baxu ko fa bayaan ba baxu ko fa lépp lu aju ci langue arabe rek daf koo maîtriser téye ko dugal ko ci poosam ndax bim ñuy jàngal ñu ñëw toog mu ne ma leen di jàngal nag lii ma leen di jàngal ngeen pour ngeen dégg seen làng bi wolof nit bu dékkut dékkut déggut nga ba nga xam ne moom laa ji am euh, dafay des dinaa dégg ci sëriñ bu ma ko fàttee ngeen nga laaj ma ko kuy sëriñ alors bi nga xamee ne toog nañ mu commencé maqaama ku njëkk ji tari ko ba mu mu ngi ni tëdd ci kaw lal mi def nii dégg nga ko amul amul téere man nag nit laa koo xam ne kii wax dëgg yàlla am xëy na sax ñàkk maa comprendre la waaye euh, gëmuma ne am na benn jafe-jafe waaye nag loo ma fa indil nag dinaa ko gëstu nag waaw loo fi indi moom foog ma xool ko parce que moo ma ko jàngal moom def nañu ñaari nit a ngi nii góor gii mooy bàyyi kii góor gi mooy yaayi kii bàyyi ñu jàngal de moo ñu wax loolu ñu si gi ko ne ko waaw loolu moom mu ne dama leen a bëgg a wax ne leen ëllëg lu leen nit waxati ak kooko nu mën a tollu na ngeen siggi laaj ko li mu wax fu mu ko teg mu ne góor gi dafa am jabar samp kër xam doom seen baay la di tukki dem ci teen naan fa ba mu fa naanee soppeeku jigéen dem mën a tuta dellu si mu continuer ñu takk ko mu xam doom kooka lan la yaayam la mu ne ñu lii nag duhul lu xam xamul mais ñi ngi ko bind tey nii ci maqaama gi nga di ko jàng foog ne lu taxaw la du ne luñ bind rek fi mu nekk nii loola lu taxaw lu sa lu wér la foofu laa leen bëggee ku leen waxati wax ku leen joxati wax ak nu mu mën a toll da ngeen def seen analyse ngeen seen waxam jooju moom moo ñu wax lu bi mu jàngee maqaama gu njëkk ji ba mu jeex te xamee ko ko tari firi ñu ñëw ci gu ñaare gu gu ñaat ñaareel gu mu firi tari firi man ci sama xel ma ne ba mu doxee xale li mokkal du gaaw a dem mais bañ demee ba gën a ci maqaama ak ñaar fukkeel gi musta ab téere laa ne kii nag bu mutu ordinaire lim jàng lépp daf koo mokkal mooy yow lu tax mu mokkal ko xëy na doo ma laaj waaye man dinaa ko duggal gis nga xam na façon wu jege booy jege yàlla dootoo fàtte def ko jege lool boo demee ci kanzul awliyaawu bi nga xam ne moom moo ko bind te mu nekk ay ñaan wa wa ardi sira nabiika la wax waa afid alayna min buxuur ulumika wa xazaini fadlika maa yugnina ani sual ila abadil abadi loolu ay waxam la du samay wax maa ngi lay ñaan yow yàlla nga sotti ci man leer sotti ci man xel sotti ci man dig ba nga xam ne man Ibrahima mii dootuma dem ci benn mbindeefam yàlla di ko laaj du ma ko laaj dara ila abadil abadi ma ngi ca tiire ba boo fa demee da koo fekk lu samay waxoo xam la ci moom laa gisee kuy ñaan ba ne aatina dunya wal axirata wa ma baynahuma maa ngi lay ñaan yow yàlla àddina ak li nekk diggante àddina ak àlaxira maa ngi lay ñaan nga jox ma ko façon ñaan boobu ñaan ba ne aatindi mulkaka bi machiatika lati laa yujizuha shay'un wa wala eh, laa yahdusuha shay'un maa ngi lay ñaan nga may ma sa nguur gi yow yàlla man nga ma koo may nguur ak yàlla gi moom la ñaan yàlla xam nga ne moom façon ngi ñaan di bëriwul loo ko dégg nit di ko ñaan ñaan yàlla ba ne ko may ma sa nguur gi man nga ma koo may te du la wàññi dara te koo ko may nag laa yaajisu maahu laa yujisu shay'un maahu wala kaana adaafa xalqika wa ajazahum lum lekk lekk lekk ndigg comme que yow yow yàlla yaa jox affaire yi ko saytu ba fa mu bëgg a àgg mu àgg fa ci ñaanam ci ñaanam yi ko wax ni an kulli nabiyin wa malakin wa waliyin siwa sayidina wa sayidina ila rabbina babilahil maftuux mooy yonentu yàlla muhammad ku dut yonentu yàlla muhammad rek yow yàlla ñaanuma ko sukkandikuwuma ci moom moo xam waaja malik malak la moo xam waaja waliyu la moo xam waaja sax ab nabiyu la man kenn rek ci laa sukkandiku bu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon nit koo xam ne kii fi mu àgg ci tawxiid dafa ëpp nang ma dimbalee ba nga xam ne man man Ibrahima du ma xam adna ixtiyaajin ila gayrika laxasatan min a daari may ma ma doy lu wëlis loo bind si waa Seydina ma nga delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dul moom ci moom ku moom rek yaakaaru moom dafay xam nag foo xam ne boo fa xàggee ci melokaane loo ñaan nay jàmm de la ngay ñaan yàlla nay jàmm waaye lu mu rek mu ñëw de lu mu ñaan ñaan na lu ne nag ci àddina surtout dëkk bii nga xam ne tey moom la sanc ñaan na ay étage yeeg ñaan na ay tool ak ñaan na amul lu mu waaw xusuur yi nañ bëri tool yi nañ bëri te meññ mu doon loolu may tudd lépp nag ay njàngale la ma yëgale la njàngale mi du nag dañuy war ne dañ ko jàng na maqamatul xarir na lii def na laa def na lii lépp ay jàngale la bu ko defee waxoon na kan mooy sëriñ mu ne ñu jàppaleen ñetti tomb yii tey buñ ko joxoñee ne sëriñ la dootu xam benn laaj bu mu delloo ci lislaam ma ne ah gars yi ñu ne ma ne ah <laughs> dafa ba topp xam nga loolu mooy alxuraan jeex na yonentu li mu wax lépp liir na ko yaa ngi déglu fuqaha yi li ñu wax yëpp liir na ko muy Maalik ak muy imaamu nangam lépp lépp lépp na ko bawu fa dara ah doon sori yombut ma ne gars yi ñu am ko ma tooñ ne ko sëñ bi ne nga mu ne ma mais man ma sëriñ ma ne ko waxuma bañ doon jàng de mais bu mbedd mi rek laa la wax kii gan la sëñ Ndiaye ah sëñ Omar na nga def salaamaaleykum sëñ bi nanga nga def waaye kër Moussa Diop laay laaj xam nga ñooñu ñooñu ay sëriñ lañ mais nag sëriñ bi bàyyi ñes di wax xut boobu lu jafe ñëwagut de nga jëfee li nga jàng. boobu mooy tombam ñaareel mu ne da ngay jëfee li nga jàng lu ko gën a jafee nga fa de da jub jub juba jafe lam ko firnde mooy benn wax bu mu wax ci téeréem bi ñuy wax tanbihul azkiya yi xam nga da nga waxul tanbihu naas yi xeexut ndin ñi mu ne ñi muus ba pare lay yee moom ñi muus ba pare waa xeewu ne jàpp nañ ne ñii moom fi mu ne nii ñii ñooy nit ñi mu ne moom nag ñooñu la jóg bëgg a jëflanteeg pour xee leen xam nga ci jàngale la bokk li may wax nii waaye jàngale bu ñu ko fi bëgg a gàttal rek toog lu foo ne mooy muy téye téere bi rek ubbi ko rek da nga am di taral di wa non non non pratique bi nga xam ne moom ngay def ci dund bi loolu njàngale la parce que euh, yonentu daf doon wax ne jëlee leen ci man muy doon ay wax wala muy ay jëf ñu ne mu ne da ngay jub ñun ñëpp xam nañ ko mu ne ah nag tujaahidu nafsaka ci tanbiihul azkiya ay samay wax de waxam la moom tujaahidu nafsaka xatta laa yabqa fiika xuluqun taktumuhu hey loolu jafe na da ngay xeex ak sa bakkan ba dootoo xam looy nëbb muy jikko bu sew mu nekk ci sa biir nga di ko nëbb niñ la gisee ñu ne fàng rek noonu nga mel ci biir. waaw ah, ñun ñii ku ci am lu muy nëbbut ku ci ku ci musta ñun lu muy nëbbut <laughs> kaa googu question boobu ñu baaxal ma nit koo xam ne kii rek ñeme naa taxaw ne man daal ci àddina bi musumaa def lu ñuy nëbb i ah! looloo jafe moom nag loolu la wax tujaahidu nafsaka hatta laa yabqa fiika xuloo contact moo moo tax di nga ko bàyyi bàyyi ji na la ñela ñiiral ci àddina bi ah dafa xànd yàlla te sellal xànd gi dafa xànd yàlla te sukkandikuwut ci kenn ku dul yàlla laa tuhawwiju nii adna ihtiyaajin ila gayrika lahazatan min a daari loolu dafa jafe di bul ma def mukk man Ibrahima ma soxla laxza mooy gendeeku bi sëbët bii dem di xëf xëf ak xib lu toll noonu sax bu ma ko soxlaa doomu aadama samay soxla yëpp yi ci yow laa koy jëmale loolu yëpp ay yàlla ay ay jàngale eh, gis nga li muy wax nii soo si góor woon jéem cee rey sa bopp ba kii léegi gaañu géewal la de foo jaarati ñu xam ne yaa fa jaar loo soxlaati di nga maam yàlla xiir mbindee fi ñu faj ko loolu la mu nja bokk na ci njàngaleem Euh, liggéey raay bii tey ba ca euh, tey euh, ndoorong bële xàlla la boo xam ne cent onze teen la ci gas xabaar waaw maa ngi ko jëlee ci papa Cheikh Ndaw mi nga xam ne moo doon gëstu gëtëb dëkk bi bi ma ko soxlaa ci moom laa dem ne ko teen yii nga xam ne tey moo nekk ci dëkk bi moom laa mu ne ma cent onze teen la bàyyi gas ci dëkk bi boobu xam nga seen oo xamagut te bëgg naa bay jàngal bëgg na jàngale mbay mu indi nag mbooleem loo xam ne war nañ koo jëmbat waaw guyaaba guyaaba ngi fi mango ngi fi limon nga fi limon mi ngi fi pomme cannelle ngi fi dégg nga ko lépp a ngi fi duñ ci jaay dara nag amul dara loo xam ne dafay ñor ñu di ko sàkk dem di ko yóbbu di ko jaay non bu ñoree ñëppay ñëw Kaolack yëpp bu noor jote fii lañ jëm si fii la ñuy sàkkee ci mango ji yóbbu sàkk ci goyaab gi yóbbu sàkk ci limon ji yóbbu li fiy ñor lépp pomme ji nga yóbbu yaa ngi déglu ma nga ma ngay jàngale nañ góorgóorlu dem ci mbay mi itam ah te nag wax dëgg yàlla suñu Afrique gii nga bëgg koo développé bëgg koo développé ci ci ci ay ci ay pexe yu duut mbay mbay bu taxawee rek xiif jóg bu xiif jógee rek nit xalaat am ay résultat tubaab yi xam nga lu ñuy rawee liggéey ak jàng bu fi mu nekk nii euh, desistive yi boo liggéey bu ngeen di ko yóbboo di ko tasaare ji àddina bi yëpp dañu koy gis ne kii dem mbay yaasin la ah xam-xam ko soo demee ba xàggoon ci seen réew ya ba xool leen ba gis leen da ngay defe ne ñii ay mbaam lañ net net netti lihuñ ma ko man maa fa dem waaw dem naa Espagne gis naa la fa ne dem naa itali gis naa la fa nekk dem naa Bruxelles dem naa gis naa la fa nekk dem naa Allemagne gis naa la fa nekk Angleterre fa la gis naa la fa nekk France def naa fa fukki entrée ak juróom-ñaar ñu ne ko tamponné son passeport man xam naa foofa la fa nekk tubaab yi daara miracle nekku jàng rek ak liggéey moom rek a ne. Hmm. day sante waxuma nag dara <laughs> waaw. wax dëgg yàlla am téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant. parce que ñoom seen euh, taxawaay ci société bi waaye lu ñu xam la ku def lu jub ñu wan la ko xaddina bi gis ko ne tàccu la ku def lu xóor itam ñu wan la ne du nii gis nga nit ñi su ma jànge jàngee euh, benn professeur bu ñuy wax euh, Mr Ralton américain la ma ne ko waa yéen lu tax si ngeen avancé nii bëgg-dëgg ñu gàttal la ma nag wax ji nag mu ne ma nangu critique critique waaw loo def ñu critiqué ko la ja baax ñu ne lii baax na la ja baaxut ñu ne lii baaxut vraiment média bi moom bu fekkee caaxaan jeex na dëgg des é laa ilaha illallah waaye lii ci des yàlla na mel noonu waaw li ci des yàlla na mel noonu bàyyi ñes nag ndeysaan ah, jeexal naa sama temps te maa ngi bëggoon ñëw ci lettre bi gën a rëy ci lettre bi ñi koy wax lettre bi ja tuddee jamiyatu ansaaru diin nga xam ne état la ci doon tabax état la waaw may dama deux minutes état la doon tabax lettre boobu ñun fii ci Médina baay bi ñu demee am ñetti fan chambre de commerce jël fa ñetti téeméeri nit ñoo xam ne spécialité yi bokkuñ document bi ñu tabaxal téere bi bi ci la bokk bi bi nekk ci ron taabal waaw ñett lañ nag gis nga ñun biñ paree yàlla dogaloon ma nekkoon ci président yi faluma ko sama bopp nag mairie na faluñ ma ko mais ñeneen a ma ko fal bañ demee ba defar suñ benn lettre adressé ko Arabie Saoudite jaarale ko ci ambassade bi lettre bi réponse bi ñëwee juróom benn téeméeri million la ñu Arabie Saoudite may ci lañ mar bi jumaa yi Medina Baay ji Arabie Saoudite moo ñu jox xaalis ñu marbe ko loolu mu tëral jamiyatu ansar diin jamiyatu ansaaru diin boobu mu defar dañuy wax ne nañ fexe ba recensé taalube baay yi defaral leen carte xat mu jot kenn ku nekk participer mille francs bu ñu amee un million dix euh, un milliard la dix millions dix milliards la dix milliards nag kees képp ku bëgg a liggéey te xamoo fond amoo kees xanaa rek da nga am ñu bëgg a dajale rek ay nañ leen dajale ay xaaral sa bopp bi kii ak nga miin rek yooyu loolu moom du defar dara moom. loolu njàngale la bu fekkoon ne fi ne nii document boobu li dañ koo jël tasaare ko Mauritanie jaar fi bàyyi jaar yëpp ñu teg ko fa ne leen nag kenn ku ci nekk Médina am na projet lu toll nii exemple benn rek laa ci jël école Médina bii ñu bëgg ko tabax te bàyyi noonu nañu ñaari yëf bu ngeen ko tabaxee ba baax rek seen yëf yëpp dana sotti ñu ne ko yam ne jimaa ji ak école bi bu fekkoon ne école bi tey man maa xamee école bi moom ko mënu maa xam xaalis parce que dajale fonds dafa jafe garder koo gën a jafe nag mais damay dem séddale rek suuf si ne Mauritanie lii yaa ko moom yow naa ne na Mali yaa moom lii yow Nigéria yaa moom lii yow Ghana yaa moom lii yow Sénégal yaa moom lii ñëpp ay taalibe lañ seen xaalis la ñu indi di ko def duñ loolu nga seeree ne duñ indi xaalis bi dañu ko jox ñun ñoom ñooy seeral seen bopp xaalis tabax seen tabax joxe seen caabi ñu dugg dem jàngi ah mais mooy bëri na yoonu gooñ yi ñu war a jaar pour àgg réussir dafa bëri kon xam naa rek euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, li ñi may ci waxtu moo néew waaye xam-xam bi ku ko dégg xam ne benn pédagogue bu mag mooy jàngale te ñi nga xam ne dëgg-dëgg am nañ niveau xam-xam suñ déggee waxam danañ xam ne waxtaanal nañu waxtaan bu mag a mag euh, li nga ko tëjee nag te yéeme lool mooy Cheikh Ibrahim fi mu bëggoon yóbbu nit ñi mooy liggéey pour jaamu yàlla liggéey pour dund pour mën a jaamu yàlla lu toll ni téeméeri teen boole ko di bay ay mboolem meññant bu nit ñi soxla nga di ko bay ba pare di ko may nit ñi boobu yaa ngi leen di wan yoon bi ñu war a jaar pour am teranga yàlla nañu yàlla fayal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam Cheikh Abdoulaye Mountakha moom mi nga xam ne itam mooy def effort yu mag pour ñiy ñëw fi yàlla fay ko yàlla dimbale ko yàlla kattanal ko dégg ko suma suma suma doom la maag papaam ñoo nekkoon keer dégg nga ko mun taxaa dégg nga ko dégg nga am sol costume bi dégg nga am daal di takk affaire bi dégg nga daal dégg mu ree alors euh, ñoo nekkoon keer ba nga xamee ne man yàlla lijjanti na ma ma dem Qatar moom mu des keer fekk avant keer mu nga xoon Maroc mun taxaa papa ma ngi doon góorgóorlu ci xam-xam dem na Maroc jàngi na fa jóge ko na Maroc dem keer jàngi fa bon moom itam wan na doomam yi yoon wi bañ góorgóorlu ñoom itam di def lii maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen lu ëpp fuuf lii nga xam ne moom lañ sémb te seen i mébét yëpp yàlla jàppandal ko vraiment Abdoulaye Mountakha bëriwul ñu ñu jokkoo maag moom mais nag euh, ku ko fan laa hein <laughs> jërëjëf kon mu ngi noonu mbokki yi beneen yoon ak ci beneen kilifa incha allah. Ibrahima الحاضرين جماله هنيئا لإبراهيم هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين